so gépp ci turu daayira Wakana Haqqan gépp ñu ngi jég lu baax ci toogaay bu yàgg bi mu mel ni wax ji deen ci am ngànt mooy li teew ci jataay bi suñu kilifa yi fi teew nekk suñ ginnaaw ñu ngi leen di dogal ngànt bu baax di tuub bu baax nag ci yëkkati ay kàddu ci kanam suñu kilifa yi di nuyu waa jataay bi yépp nag xam naa dañuy bañ waaye bu ñu tuddee sëriñ Ibrahima jenn sëriñ Ndonga ak sëriñ Mor Diouf ak kilifa yi teew ci jataay bi leen yóbbaale ñëpp di feeñal mbégteem ba kànn xet gépp ci liggéeyub daayiratu Safinatoul Aman bii muy liggéey boo xam ne liggéey bu dal xel la liggéey wees rafet njott la liggéey la boo xam ne mënees naa xam fi mu tàmbalee waaye fa mu yem dee su xam ngir cosaanu liggéey bi ci jataay bi rek sax mën nañ cee joxe misaal moo di kilifa yooyu ngeen tudd nga xam ne tey fu lislaam àgg ci làmbaay fu liggéeyab Serigne Touba bi àgg ca làmbaay seeni jeexitam ci jataay bi kon jataay bii mënees sa cee rafet njort bu baax a baax a baax ndax dégg naa ci waxi sëñ Mor mu ne euh, mel na ni tey jii bu doon am anniversaire tey la anniversaire kon loolu cosaan lay dellusiwaat bi mu ko amee tey jii it kenn ci nun nga xam ne doyoon na sëkk ci ahlu Moussa Ndiir muy sëñ Mandiir tàbbi si tey ji liggéey bi bi mu nee jaay leen ma carte membre li ma yëg yàlla rek laa koy seereel ndax da koo xam ne jataay bi ma ko fekk ñi me mbooloo ma rawatina ma dugg ci jataay bu fekk si ma dama tuub sax ndax moo war ma moo war a jiitu ci jataay bi ndax lu baax lu ne yéene naa ko kon su ma duggee ci jataay mu fekk ma fa dugg ca jataay ba alhamdulilahi rabbil alamin kon mel na ni jataay bi leen ci gën a sóobu bu baax a baax danañ ci gën a jël suñu engagement yu ñu ci war a jël ñoom ñu ko àndal ñoo ko waa daay waa daay raw kaan àqan gépp ak waa musa gépp insha allah du gën a gën a gore mukk ci kër gàtt ndax li ngeen ñu lebal mënatuñu leen ko fay liggéey bu toll ni lëkkale làmbaay gépp njaboot ak sëriñ bi yëpp njaboot ak ñu baax ñu fa jaar yëpp nga lëkkale leen ñu boole leen benn say ñu ànd liggéeyal sëriñ Tuubaa loola ku la ca woo amatu ak feem rawatina bis bu màgg bii nag ngeen àndil ñu ko kon na ngeen xam ne yéen a jën am ci wax leen ko liñ mën a wax suñu xol ne am ci suñu làmmiñ li ci sonn xolu ko waaye nag dara bu du jaawee sëriñ bi nga xam ne moo tax ngeen defal ñu lii ñu bàyyi leen moom fiyal ñu leen jataay bi it nag yaakaaru na bu baax a baax ndax ba ñu commencé la Serigne Touba tàbbi ci jataay bi fii ñu toog di wax yéen Serigne Touba ci biir jataay bi liggéey bi liggéey bi Serigne Touba nangu la wallaahi yàlla xam na ko dama ci dégg dara sañu waaye ñu ngi ci sama ginnaaw sañ na maa wax lu nekk da ngeen baal ma kon na ngeen xam ne liggéey bi fu ngeen ko bëgg bu dafa ak te lay lay lay lay kii bi rek di ngeen ko sosee léegi man ñetteel mu ak si fii loolu wamatu Serigne bi ci nekk kon na ngeen xam ne fu ngeen ko séntale fa ngeen bëgg jëm rek dina fa dina fa ak insha allah bi rek moo jar a moo jar a te tàbbi nañ ci ndax bu ñu seetee sunu kilifa yi toog seen maam yu baax yi nga xam ne ba ànd ak Serigne Touba jare bakkan ñoo jóg tay la seen bakkan ngeen ànd ak Serigne bu seen i jeex toogee ci jotaay bi ah tawfeex dëgg la te li ci gën a neex gën cee doy waar mooy Serigne Touba wax naan wan ma sa goney tay ma woon la sama bu ëllëg waaye ku xool jotaay bi xool ñii tabaarkàlla mag ñooñu duñ a gore fa ñu amoon rek fa ñu fa seen am incha allah ña si ña Serigne Touba jara la ñu tay la seen bakkan ngir moom jaral na ko ji waa jataay bii te jataay bii dafa bokk ci jataay yi nga xam ne sëriñ bi da koy puukare bu ëllëgee ndax lan cosaanu làmbaay la nga xam ne gonee làmbaay dañoo ñëw di ko dundal te sëriñ bi bëggan gone gu jaamu yàlla di liggéey sëriñ Tuubaa boole ba tax na sëriñ bi daan jekk ci ba mu yàgg mi wax ne maa bëggal sama jëmm yu nekk ñaari jëmm jenn jëmm yu topp ci mor di ko liggéeyal ngir xam ne liggéeyal ko njariñ la ca nekk ñoo ne su koo fay mu ne xalaat dañ koy jóor rek di ko jàll ci liggéey sëriñ Tuubaa doon kon ñi xam ne dañoo ànd lëkkaloo liggéey sëñ Tuubaa rekk ñor leen ñooñu seen xel seenum xel war naa dal tey ak ëllëg dañu xam ne li baax lépp ci liggéey sëñ Tuubaa li baax lépp gën lépp yàlla jox na ko sëñ Tuubaa te nu rekk tax mu foog ko fàgg kon fàgg googu nga xam ne sëñ Tuubaa dafa fàgg àdduna ak la ci mu ëllëg nga xam ne fa dara du fa doy mu fàggul ñu ko tey ak ëllëg loolu rek war naa tax nag suñu laxasaay war ñu ko tekki nan fas yéene nii ñu mel suñu jëmm yi ba ko jaar ci jotaay bi ne ëskay bu waxee ñu ne ëskay bu ñu defee ne ëskay rawatina nit dafa war a puukare fu mu nekk ñu toog làmbaay di ko war pour gëroo ku jaar ci jataay bii ñu ne la waa làmbaay toog fii ku xam histoire làmbaay xool ñu toog fii da ngaa war a santaat sa borom rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a formé jataay bi bandi ko fii xam naa tey dinaa lot loolu ci wax ak nit ci jataay bi sama kilifa yi fi toog ak euh, mënu maa wax daal tey waaye nag xol bu sedd ba trop ba xol bu sedd ndax li gën a neex ci àdduna loolu li ñu dàqal ci àdduna mooy waxtaari Serigne Touba mooy nekk ci liggéey Serigne Touba loolu moo ñu gënal suñu lépp te moom ngeen ñu defal ci tey mooy xasida yi nga xam ne jàng nañ fi tuwaar kàll ngeen dugg kuréel fi jaar muy wakaana xam diggante ke ba ci kuréelu safin ulamaa bi nga xam ne jataay bi boo gisee sama biir wax ma ne sëriñ baa ngi li mu bëggan lépp moo tënk ci jataay bi kon ba ñu ko commencé rek la sëriñ bi toog ci jataay ba kar ñu fi yeewu ba kar ñu yàgg suñuy kër fu ci waaye nekk xamal ne ak sëriñ bi dama xel gën a dal baax a baax ñu gën a laxasaayu gën a tekkaat suñu digg te xam ne lii rek te war a nekk ñu ngi sant baax a baax a baax day mel ni eh, sa ndax dañoo am ngàntal wax ndax lii ngeen lii lii ngeen ñu defal muy muy muy jóg seen jëmmuy sell yi ak jëmmuy sell yi teew ci jotaay bi rawatina xasida yi ngeen xam ne jàngeen fi te wax dëgg yàlla damaa ragal ne murit bi boo koy bëggal ci xasida nga koy bëggal ndax sëriñ bi xasida mi amatul lu ko kawe kon bu bu bu ñëwee andi lu ko doon ci bëggale wallaahi cant mën romb cant waaye nag amuñu dara waaye am na sëñ Tuubaa amuñu dara mënuñu dara xamuñu dara taluñu dara waaye tal nañ sëñ Tuubaa tey ci biir njàng bi yëg nañ ci la sama sàng boo xam ne muy sëriñ Moussa Naame daa neen boo ëllëgee yomal xiyam nii murid yi ñuy jànge xasida ba di daan su ëllëgee yomal xiyam foofu la jël ba daanoo dina fekk mbooloo bari mu sawara yéen mu saqale dugal àjjana yàlla yàlla ma ko bindoon da leen di moom ngir jëmi sëñ Tuubaa ji rek kon alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xamee ne jotaay bi bu ko sant nañ baax a baax <laughs> bu ñu fi toogee di wax ba suba sant gi ma romb romb romb jant waa rek wa Gana Xane Busso gépp ñu duggaat tàbbiwaat ci biir liggéey bi gën a sopp gën a gën a soobu insha allah ndax damaa foogoon ne nag bu ñuy liggéey Serigne Touba kenn waru leen caa jur kenn waru ci man ndax ci li tax war a mën a liggéey Serigne Touba war caa def suñ képp talay kattan ba dara amagul gars yu baax yi ñu ak seeguñu fii booba la seen loo booba la mën di jox nañ Serigne boo demee nag moo woon sama ñoñ booba dara man di rek rasul ak Serigne Touba ak rasulullah ñoo nekk di ñu liggéey rasulullah man di ko ñëw naa ba dem du ba dellusiwaat waaye yaa ngi yaa soo demee nag ma woo sama ñoñ ba mu wax Serigne Babou Dir la fekk ak i ak i ak i woo ko ndax ba Serigne Babou la ko dox ba mu ñëwee a sori waaye ba mu ñëwee daf ko ku ñuy wax sa maam mëndir faa moom laa bokkal ñuy liggéey rasulullah ci asal boobu dara mu waxaat ma soo ñëwee na nga ma wool sama ñoñ di ko fekk ñuy wax Babou daal di waxante ak moom wax ko la mu ko waxoon daal na ko nag sa diggante sa borom lu toll nii ne su fa waaye soo ma joxee sa bopp àgg fa ñëpp di àgg jamono du am ñaari borom benn lay am waaye bu doon ñaari borom am ngeen am ngeen yéen moo yéen moo benn muy di ko nekku seen maamu li ko liggéey la kon loolu jataay yii bu ngeen ko defee woonu ji bu fekkee nu suñ ngor may mat sëkk fu ngeen woo ñu wuy leen fa kon maa ngi jël jégalu baax a baax sëñ bi ñu ngi dogal gàtt baax njaay sang di ñaan nga gën a yàgg gën a wér barke sëñ am nañ mbégte baax bi ñu gis jataay bi jataay bi dolli ko waat na yaakaar baax a baax a baax incha allah dañuy sóobu tudd dellu ginnaaw fas yéene ànd yéen rek ci jataay bi soobu yàlla xam naa amoon naa ngant wax ndax sama jiwri ñu ngi ni toog ci ginnaaw suñu asan waaye <laughs> moom daal ngeen xam ne bi incha allah fas yéene jël nag li ma waxoon rek amaat xel mu daal baax bi ma gisaate sama kilifa ñëw tey rek xool liggéey mu neex ko rek mu daal di sóobu euh, ma seen sama seen muy seen moo tax man am naa ngant wax samay mag ak samay rakk ñooy samay sang dama ne sopp ba ma seen jataay bi toog moo tax waxuma laa ma jël seen kanam ci kàddu loolu moo moo moo moo taxar ma am gàntal wax waaye kuréelu wakkaanaa xat nag di sama gos noonu laa ko mën a waxee ndax bëgg gu ma bëgg waaye bëgg gu ma leen bëgg Serigne Touba rek a tax di leen safoo fu ma toll di leen puukare ndax nag boo jóg da ngay seet la nga bëgg nga wàññi ko te bu ëllëgee bu toogee ca kanam gaa yi baax yi te kanam sëriñ bi jataay yi rek fay nekk man toog naa benn suuf sax ma yëngu sama néeg toog tuur samay xeel ba sonn ngir xasida gu may déglu ma soo su ëllëgee de xasida yi ku ko dégg te ne ko ca jotaay baramal wëri sëñ Tuubaa ne ko fa nekk ndax kuréel gii rek mooy wër sëñ Tuubaa bu liggéey fa nekk ca penc ma kon alhamdulilah rabbil alamin dégg lu <laughs> baax a am baax tubaarkaal ñu a baax salaamaaleykum yàlla yàlla sàmm la te wéral la te àggal sa liggéey fi nga bëgg àgg ci liggéey bi yàlla fa àgg sëriñ ko ñu ngi jégalu ñëpp di jaajëfal ñëpp eh, na bawal gépp ñu ci liggéey bi incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum wa rahmatullah ah sëñ biir yow de sa kàddu yi moom lu ñàkk la wax yàlla yeesal nga yitte yi dàggi nga te lii rek maanaam ay kàddu lii rek lay jariñ kàddu bu fekkee boo ko dégg boo ko dégloo jamono yi nga ko dégloogut ak boo ko dégloo ba noppi dina di nga gën a yokkaat loolu rek la ñuy sàkku ciy kàddu te loolu moom wax dëgg yàlla dañ koo miine murit yi murit daal saa yu yëkkati kàddu ci kanami murit xaal jëm leen fekke bu demee ba noppi war nañu yéegaat jeneen àll du gën a kawe seen bëgg sëriñ bi gën a yees seen ak dogu gën a yees seen ak jaayante gën a yees seen xol gën a sedd te loolu gis nañ ko say kàddu jërëjëf sëñ Ngir jërëjëf jërëjëf bàyyi sëriñ macha allah dégg nañ lool kàddu yi mënta na ñàkk suñ boroom mooy def loo xam ne ci doomu aadama moom rek moo ko man maanaam bàyyi sëriñ yow boo téye micro bi di ree rek murid di dégg barke sëñ Tuubaa maanaam say boo téye micro bi di ree say ree rek daa am fu ñuy yóbbu moo jóg sëñ Muntaxa benn lañ kooku moom tawféex la barki borom Tuubaa micro boo ko téyee di ree rek ñuy bëgg daara ji nag am na gan daara ji am na gan bàyyi sëriñ sa place sañ ci daara ji dangaa war a ñëw ñu ànd liggéey sëñ ndax lii ñuy def yaa nu ko dàq fuuf yow fu daayira sax na lu amaan toog yaa war a jël micro bi soññee ñu soog a tàmbali liggéey bi sama gis-gis kon sa place añ ci daara ji sa place mu ngi ci biir Safinatou Aman ñëwal ñu ànd liggéey sëriñ bi le 21 boobu mois de octobre 2021 sëñ Omar mii dama ko woo téléphone ne ko làmbaay dañ leen a bëgg a dajale mbooleem jànkati xaside yi mbooleem waxtaankat yi mboo maanaam daal taalibe sëñ Tuubaa yi nekk Dakar yépp ñu ànd liggéey sëñ Tuubaa dane ma loolu ak a yàgg nekk sama xel dinaa ñëw ba mu ñëwee la tàbbi waaw ba mu ñëwee la tàbbi ci liggéey bi mu ñëwee li na ci moom sëriñ bi def ko da koo génne teg ci taabal bi ñu ànd liggéey Sëriñ Tuubaa ku ne xam na ne suñu Omar bi mu duggee ci daara ji yokkute am na bu wér kon bàyyi sëriñ sag tàbbi ci daara ji suñ ak yokkuteeg daara ji mu ngi nii ñu jàkkaar lool yow boo tàbbee ci daara ji daara ji dina amaat yeneen jéego kon ñi lay tàllal loxo li lay war a sóole ñu woon ñu ànd liggéey Sëriñ Tuubaa ci réunion yi ci lépp ñu ànd liggéey sëriñ ndax xam nañu boo ñëwee di nga ñu yokk yàgg waa wakaanaa xan yëpp mbusa suñ borom moo leen defal tawféex kooku moom liggéeyu sëñ baaba la maa ngi jégg lu baax samay kàddu sax ci sëñ Sidi laa ko war a tàmbule ndax mooy jëriñu wakkaan ak mën naa ne ndax mooy seen kilifa ci liggéey bi waaye maanaam nit di ngeen dem ba demee noo xam ne sax da koy boole ci sa bopp ba mën naa am sax doo ko doo bàyyi xel ne da ko war a tudd wala da nga ko war a sant li koy waral mooy boole gi nga ko boole ci sa bopp ndax sëñ Sidi ku ne xam na ko ci woyafa ak ci bëggam lu baax daanaka daayira bi fu mu toll dañuy déggante ma moom muy ku liggéey bi ñor te jiite mbooloo mbooloo mu leen di xirtal ci liggéey bi kon sëñ Sidi sa taxawaay tamit gis nañ ko bu baax a baax yooyu bi nga tàbbee ci daara yi gis nañ baax li mu yokk daara ji ndax li li nga xam ne dafa am euh, dafa am léegi ci jamono ji muy jànkati kuréel yi jànkati rajas yi jànkati awo yi waxtaankat yi nangam nangam te ñëpp nag fenn lañuy ñuy daje muy sëriñ Touba ñëpp. sëriñ tubaa la ñuy liggéeyal kon suñu liggéey bi lim lim ëmb dafa bari kenn wër ta xeemal sa borom ab liggéeyam moo tax safinatu amaan dañuy liggéey boo xam ne ñu ñëpp ci war a jàpp loolu sëñ si da liggéey liggéey bu am solo ndax dafa jiite mboolem ndaw ñi xam ne dañuy roy sëñ Xaadim Géey te dëkk tund làmbaay boobu ba léegi mu ci liggéey liggéey bu am solo suñu diggante ak ñoom ci safinatu amaan gi ngir ñu xam ne ñëpp benn lañ kuréelkat beeg waxtaankat beeg jàngkatu aw beeg rajas bi ñëpp suñ tubaa la ñuy liggéeyal te nag Serigne Touba ku koy lijjal ku nekk di nga fayu ala kulli aal di nga fayu kon nag ñun ñëpp dañu war a jàppante nekk benn te xam ne ñëpp Serigne Touba ñu tànn ñun ay tànne fi Serigne Touba rek bu ko soob bu ko soobul woon ñun duñ nekk ay taalibeem kon ñi leen di jaajëfal baax a baax jataay bi nag bàyyi Serigne yaa ko neexal <laughs> jërëjëf sant nañ baax a baax. sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey